nee na tey ñaan sa borom ko fi lool nee na mébétam yépp mu am ko nee na ginnaaw bu loolu wee nee na sama bokk yi fi nekk yépp nee na maa ngi leen di nuyu nee na te di leen sant nee na ndax kenn desul nee na ba fi sëriñ Abbas nekkee nee na ba ba ko fi yàlla jëlee nee na ci coobareem nee na daanaka dala laata moo mat weer nee na kenn ku bokk ci borom daaru musti desul nee na ñépp ñëw nañ ci moom nee na nañ defoon borom daaru ñu def ko moom sëriñ Basiru mii nee na ministre bi itam nee na ñoo ngi lay yëbbante nee na nga nuyul nu président Macky Sall nee na ca santal nu ko nee na ndax buur moom nee na moom rekk moo fi nekk nee na akub sëriñ nee na su fekkente ni bëgg na laa woyafal nee na bëgg laa dimbali nee na la nga bëgg mu def ko nee na ci àdduna nee na moom dong nag moo ko moom nee na su fekkente nag nee na lii nga xamante ni mooy sëriñ Touba ak Thierno nee na ñoom rekk ñoo ko man nee na kon ñoo ngi leen di dénk nee na jaamu yàlla nee na ak topp yàlla nee na ak li yàlla digli ngeen def ko nee na li yàlla tere ngeen bàyyi ko nee na yéen bokk yépp laa ko digal nee na ak yéen taalibe yépp nee na ndax ku ko deful kat nee na bu demee fa ñu jëm nee na da nga ko réccu nee na li nga xamante ni moom laay war a wax ci gouvernement nee na ak ci soxla yu ma ko war a teg nee na ak ndimbal yu ma ko war a sàkku ci moom nee na ak lépp lu ma war a wax ci moom nee na sëriñ Basiru mii laa koy waxloo nee na waxloowu ko kenn nee na képp koo xamante ni danaan maa ko waxloo ku dul sëriñ Basiru mii nee na daa ay wax day wax ay waxam rek nee na àdduna nag lii fi nekk nee na mooy jaamu yàlla nee na ndax nee na boo bëggee sa àddina nee na jaamul yàlla nee na ca toppali sëriñ Touba wax nee na ndax foofa kat sëriñ Touba rek fa man dara nee na tamit moom dong lan fa yaakaar nee na ca lii mënu defal ci àdduna sii nee na tax na nu xam ni nee na buñ demee fan jëmit nee na yaakaar naa ni keroog lay raw nee na kon nag kon nag nan ko topp Serigne Touba nee na te gëm ko nee na te bañ ko booleeg dara nee na ndax boroom daaru mii nee na mooy jëwriñam nee na moom la jiital nee na moom la jëkkaam nee na ba nga xamante nii nee na yàlla def na sunuy nopp nee na mu nekk ci néeg nee na génnagul nee na la ko Maam Mor Anta nee na mooy Seydou Salihin nee na Seydou Salihin nag boo ko déggee nee na ñitti niti àddina yépp nee na moo ci gën nee na boo xamee nit ne ni xutbu samaan wéy na nee na moo ci tegu nee na la ko la ko sëriñ Maam Mor Anta Sali nii nee na mu ni ko man de yàlla xamal na ma ni nee na kii soxna Faati Isa nee na lii nekk ci soxna Faati Isa nee na bu génnee nee na tey góor nee na li nga bëgg lépp danga ko am nee na boo xam ni leneen la nag nee na lu dul góor nee na dana am ay manqué manqué nee na yàlla def muy góor nee na sëriñ bi dem ñaanal ko nee na bindal ko téere nee na sëriñ Tuubaa ko jox naa la Maam Mor Anta Sali ni ko jox naa ko nee na xanaa kooku nee na kenn du weranteeg moom ci njëkk a jébbalu de nee na nee na loolu muntaam nee na bi nga xamante ni dikk na it nee na sëriñ bi ni ko nee na lépp lu ma am jox naa la ko nee na ndax yow nee na ci mujj la ko wax nee na da ngay koo xam ni kii nee na bu doon ab kursu kat nee na da ngaa jëkk a daw nee na te nunguwulaa taxaw nee na kooku nees koy jote nee na loolu ci sëriñ Abdou Khoudoss laa ko déggee nee na li nga xamante ni mooy àdduna nee na ku ko bëgg nee na da topp sëriñ tubaa nee na topp ndigalam nee na lu mu la digal nga def ko nee na lu mu la tere nga bàyyi ko nee na ndax moom fu mu joxoñ rek nee na foofa la ñépp di aw nee na loolu moom na ngeen ko xam moom nee na bu dee wetug àllaaxira nee na Serigne Touba dong moo fa man dara nee na man toog na Cheikh Abdoulaat nee na mu ni àddina day lañuy wax diw mooy sama sëriñ nee na wala diw sama nangam nee na waaye buñ gasee nee na ba bëgg ko caa dugal nee kuñ ni yaay sëriñam nee na kii yow la fi yaakaar nee na nga bañ nee na kon Serigne Touba dong moo fi nekk nee na nañu topp ci moom nee na te yaakaar ko nee na te xam ni nee na àdduna bi day jeex nee na man sama wàll day li ma ciy wax du bari neena ndax jaamu leen yàlla nee na topp leen ko nee na ndax borom daaru nee mooy ki nga xam ni. nee na sëriñ bi def cee wax ni. nee na sëriñ Abdou Khader. nee na ñetti wax yu mu ko wax rek. nee na teyit boo andi kaamil nag. nee na mën naa la ko waatal. nee na dañoo toog di tàngal ataaya. na mu toog ci piliyaanam boobu. nee na booba sax waxtaanu àddina rek la ñuy waxtaane nee na sëñ Abdou Khadir ni man day li ma ciy dugge nee na Ceerno de moom nee na xam na ci sëriñ bi lu kenn xamul nee na mën na ci sëriñ bi lu kenn mënul nee na am na ci sëriñ bi lu kenn amul nee na yett yooyu rek nee na doy nag màggal nee na doy na wax ci moom maam Ceerno doy na sëkk nee na ku ko waxoon mu doy jërëjëf nee na toog naa ci Seex Abdulaat nee na mu ne Ablaye Wade nee na Ablaye Wade ñëw fa nee na maa ngi toog nii nga xamante ne noonu la Baye Samb tooge nee na mu nuyoo leenu mu ne ko Ablaye Wade ni ko damaa bëgg a tàggoo ndax damaa am réunion nee na Dakar nee na tey ci 6 heures nee na tey ci 6 mu ne ko nag damaa bëggoon nga dem daaru nee na ndax foofee la ñuy faloo nee na fa la ñuy folli koy itam nag nee na bu fekkee ne te nii nee na réunion bee la gënal nee na nga dem ndakaaru nee na mu ne ko su fekkee faloo la gënal nee na nga toog mu ne ko maa ngi dem daaru léegi nee na mu ne ko boo demee demal ci Abdou Khoudous nee na foofa la ñuy faloo nee na foofa la ñuy follikoo nee na Ablaye Wade ni ko nee na waxuma la réunion ba waaye nee na nguur gi sax nee na boo demul ca réunion ba folli ko nee na damay folli yépp nee na damay daal dem daaru yépp ànd ak gouvernement bi nee na te duma fa jóge te yeewuñ ma nee na kon ko bëgg àdduna na da ngay def noonu nee na ndax fii nee na daa bokkul ci dëkk yi nee na Tuubaa nee na xam ni mook Touba ñooyem nee na ñun ñépp nag nee na nañ ko xam na ko ñëpp xam na ko ñëpp xam nee na ndax nii màggal gi mel ren nee na ndax gis nga ko ci geneen màggal nee na muntaam nee na muntaam nee na sëñ Abdou Khoudous nee na Ceerno day jonge ju njëkk a tëb